ce samedi 18 juillet 2020, le ministère la Santé l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 790 tests réalisés, 125 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 15,1%. 82 Les cas positifs sont répartis comme suit. 76 cas contacts suivis par nos services, 49 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Dakar Plateau 4, Guédiawaye 3, trois Wakam, 3. Parcelles Asseni, trois Touba, 3. Yoff, 3. Mariste, 2. Poud, 2. Rufisque, 2. Almadi, 1. Birkilan, 1. Cité Soprime, 1. Gibraltar, HLM, Joal 1 Kaolack 1 Kédougou Kolda Liberté 6 1 Ñaari Tali 1 Sangalkam 1 Thiadiaye et Ziguinchor 50 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 45 cas sont dans nos services de réanimation. Trois décès ont été enregistrés ce vendredi 17 juillet 2020. L'état des autres patients reste stable. À ce jour, 8 669 cas ont été déclarés positifs, dont 5859 guéris, 163 décédés et donc 2646 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux encore dans nos services. le ministère de la Santé et de l'Action sociale réitère ses recommandations à la population pour le respect des mesures de prévention individuelles et collectives, essentiellement axées sur le respect des mesures barrières, notamment le port de masque, la distanciation physique d'au moins un mètre dans les lieux publics et rassemblements et le lavage fréquent demain. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vous remercie. asalaamaaleykum mbokk yi ma jottali leen communiqué bi bàyyeekoo ci ministère de la santé et de l'action sociale bi nga xam ne jot na jot nañ ko bésu tey gaaw fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juillet bi ñu nekk ministère de la santé de l'action sociale. jot na examen yi bàyyeekoo ci laboratoir yi te ma leen di waaj a lim nii ci juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk test yi ñu def téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñoo ci positif ci ñooñu juróom-ñaar fukk ak juróom benn juróom-ñaar fukk ak juróom benn ñoo ci ka contact mooy ñi nga xam ne dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro yi ñeent fukk ak juróom-ñeent ñoo ci cas communautaire ci ñooñu nag Plateau am na ci ñeent Parcelles Assainies am na ci ñett Ouakam am na ñett Yoff am na ñett Guédiawaye am na ñett mbaaw ñett mbuur ñett tuuba ñett puut am na ñaar Rufisque ñaar Mariste am na ñaar Cité Soprim am na benn Gibraltar am na benn Ouest am na benn HLM am na benn ñaari benn Liberté 6 benn Almadies benn Pikine am na benn Sangalkam benn Mbirkilaan benn Joal benn Popenguine am na benn Cajaay benn Thiès benn Kaolack benn Kédougou benn Kolda benn ak Ziguinchor benn juróom fukk ci ñi ñu entré woon hôpital wér nañu te dinañu génn tey bu ci yàlla àndee ñeent fukk ak juróomi ñu ngi ci des ci réanimation ba léegi ñett ñàkk nañu seen bakkan ci bësu démb ajjuma fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juillet bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bësu tey dale ko ci kaw bu njëkk senegal wàññi na juróom-ñetti junni ak juróom benn téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñeenti cas ci ñooñu juróomi junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent wér nañ si téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett ñàkk nañ seen bakkan mu des ñaari junni ak juróom-benn téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn.